man maa la ko wax ñu bàyyi ba histoire yi ñëw ba ñu arrêté ko tout ça man ma jàpp ni Mamadou Dia amul vocation politique politicienne xolu jullit la amee vocation mooy topp boroomam